jërëjëf di sëriñ Mbacke Abdou Rahman ci tomb bi nga xamante ne tey jii ubbi ngi ci yi jullit yëpp lay wax waaye nag rawatina yoonu murit mu mel ni ki na mbokk yi ni leen ko waxee woon ci tàmbali bi rek liñ ci moo doon li dugg ci murit yi te bokk ci mel ni ne loola jur na ay yàqu-yàqu yu yaatoo yaatoo yoo xam ne bu ci nekk leeral na ko benn par benn ba fi ñu toog nii loolu nag dara jiitu ci woon li indi woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ci tàmbali muy jukk yi nga xamante ne dañ ko jële toxale ci yeneen réew indi ñu ko bare imposé ñu ko ñu koy dund nag ci par di ci mag ñi di ci gone yi di ci jigéen ñi di ci góor ñi loolu si lu leer la loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi bi mu ñëwee fekkoon na fi ay kilifa fekkoon na fi lu ne waaye daf noonu innama bu istuli utami makarimal axlaq mu wax ci lu baree baree baree bari loola bi sëriñ bi dee suwaatee tamit loolu la leeralaat rek ndax ku na xam ne ni mu ko leeralee bi sëriñ bi dikk fekkoon na fi alxuraan fekkoon na fi xam-xam fekkoon na fi lépp waaye nag dafa am lu fi la feeñoon màkka ci jamono yooya ba ba ñu jëloon seeni i statistiques seen yépp daan ko jaamu loolu moo feeñ ci biir yoonu murid bi ci lislaam sax bi si paxam ma lay wax ndax booba gis nañ ne caaxaan yu bëri na waaye nit yor xam-xam ba pare te mënoo jëfe xam-xam bëri na fi waaye it yor xam-xam ba bari jàpp na yaa gën yow bari na fi ba tax na yow li nga xam sax mënoo koo jariñoo ba mën ko jox keneen sëñ bi na lii nag kon feebar la mu daal di nag commencé di taarif ay téere di woote di def yoon yu bëree bëree bëri yoo xamante ni moo waral tey fii ñu agsi ci yoonu moo ñu agsi mbokk yi jàpp naa ne loolu lu lu mat a bari xel li ma gën a ñor nag ci wax ji te ñun ñépp ñu bàyyi ko xel mbokk yi dem ba léegi nag daanaka sëriñ amatul maa ngi tuub ci wax ji daanaka sëriñ amatul laay ma ko wax ndax bu demee ba fop xasiday siñ bi def ko nag mu nekk suñu sëriñ te sëñ Masamba ni ko leeral la fii sëñ Masamba mi nga xamante ne tey jii lu ëpp ci xasida yi lu ëpp ci xasid yi moom moo ko leeral maas ko def ko lépp ba nit ñi man koo jëriñoo amoon ab sëriñ bu leer naññi di sëriñ Tuubaa daan dund ndigal ah kon de xaw ma nu ñu def ak ñooñu nu ñu def ak Cheikh loolu nag mbir mi ay njàngat mu yaatu yaatu la jërëjëf sëñ Mbàkke dégg ñu mbokk taal bi suñu kilifa bi teew asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu xanaa yëkkati ay kàddu yu ay kàddu yu ay kàddu ndokkeel di ko teg loxo suñu kilifa sax Mahamadou Faadal moom sax Mahamadou mu da jàpp ñu ko bi yëpp di ndokkeel bu baax suñu sëriñ Mahmoudan ñu taxaw liggéey bi nu mel di bu baax suñu kilifa gii suñu wet di sëriñ Mbàkke Abdourahman ak lu am solo li mu fi indi xam naa oustaz Adama kaddu yi ñu yëkkati kaddu yu ndigal la rek ñu kilifa yi sant waaye duñ ko dee taxliix ndax suñu kilifa gi lim fi wax leer na lool duñ ko duy leeral ndax ku koy jéem a leeral mën ngaa gën a lëndëmal wante kon xanaa fi may jaar rek ngir jëfe ndigal mooy ñun taalibe yi lii sëriñ bi doon wax lan lañ ci mën a jàngate ci ay bind yoo xam ne bu ñu jógee ne war nañ koo daal di mën a jariñoo ndax loolu képp nag moo tax waxtaan wi jóg dajewuñ fi rek ngir sëñ bi waxtaan wi neex na conférence bi neex na ndaje ba neex na toile ba rafet na xumb na yaakaar naa loolu indi ñu mooy dañoo bëgg sëñ Mbàkke Abdourahmane li doon wax ku nekk ci am ci comprimé boo mën a faje sa bopp yu métti te bopp yi métti nag bari na mbokk yi damay wax na taalib yu bëri ci bu ñu xëyee am na xasida gu ñu fonk di ko jàng lool te mooy Matlabu Sifaay te ba léegi dégguñ luy Matlabu Sifaay Sëriñ Tuubaa moo wax ne yaa man yaruma dax ak kulla daa falaa tufaarax Matlabu Sifaay wa dum alayhi fil masaay wa sabaa yow mi bëgg a faj jàngoro yi saxal ci Matlabu Sifaay mbokk yi lan mooy jàngoro yi Sëriñ Tuubaa xasida Matlabu Sifaay ba mu jeex xam dal li si danaa waddaay ba xasida nga jeex waxu fa bopp buy métti waxu fa biir bi metti waxu fa bëñ bi metti waxu fa nopp bi métti waxu fa cancer waxu fa tension waxu fa jabet lan mooy jàngoro yi mooy jàngoro yu xol yi lan moo koy saafara moom la sëriñ bi di wax ci mal la bi si faay kon feebar am na waaye ndax yëg nit ne feebar am na bay faju bi ku nekk ñun ba sa bopp méttee wala tànk demee da ngay xool paracetamol wala lu koy faj te am na feebar yu gën a garaaw fuuf tension yi ak jabot yi ak bopp yi métti ak biir yi métti te comme dal ngeen wala soxna wala sa njaboot doo am jàmm te fa jógoo feebar yooyu mooy feebaru xol yi te loolu mooy yàqu-yàqu yi dugg ci murid gi moom yi sañ doon wax mu war a commencé nag ni mu ko tënke sànq delluwaat bu baax ci xam-xam xam-xam nag bu ñu ko waxee mbokk yi mokkal alquran baax na lool waaye doyut mooy dañoo war a mokkal alquran jéem a dund alquran jéem a jëfe alquran jéem a tënk li nga xam ne doomu soxna war na ko xam ci alxuraan du rek dañuy mbokk ja alxuraan jàng benn risaala laf daruy jeexal ca waaye mbokk yi war naa gën a xóot loolu te buñ ko jàngee ba pare ñi jëfe ko te itam ñi yëg na seen tuwaa lim ñu bàyyi lépp xam-xam la kansil adisu wal adisu wal adab laa jam as fiddatin walaa jam saab seen tuwaa newoon na maa ngi leen dénk ngeen xam lu seen day jëmm waaye man seen Tuubaa warnul naa leen danaa leen bindal luy tax ngeen xam seen farata jëmm mooy nañ wax taalibe yi ne leen xës yi dëgg la jaalibe ci la bokk dëgg la wakkaane attan ci la bokk jënd man la fu sifaay ci la bokk waaye xës yi mbokk yi tasawuri sexaar ci la bokk masaalik ci la bokk maxaalis ci la bokk mawaahibul quddus ci la bokk te loolu seen Tuubaa di ca digle lu gën a lu rëy lool loo xam ne li ñuy sàkk xës yi seen Tuubaa digle na ci ma bu ñu demee ci xasida ak tasawudi sixaar sëñ Tuubaa ma ngay wax ci tarjubaan bi ne yaquudu kullu man talaahu ila jannatillaahi sin alxaari ne na xasida gii képp ku koy jàng dalay wommat yóbbule ci aljanna yàlla yit boromu dex mooy dafa bëgg kon ñi jàng xasida yu jëfe ko mooy ni ñu fonk yeneen xasida yooyu ni yëg ne li sëñ Tuubaa bindoon ci xeetu xam-xam ci xasida yi bokk loolu benn tomb la boo xam ne sëñ Mbàkke bind na ci joxe na ci lu yaatu beneen bi ci mbokk mooy lu ñu boole sëriñ bi mooy nekk ay murit yoo xam ne lan na ñu koy fàttali ndax boo jàpp bëri ku jàpp ne yaa ngi ca te génn nga ca te kenn ku nekk buñ la joxe dal doo murit doo nga mer buñ la joxee ne doo taalibe nga mer te sëriñ ne woon na maa ngi leen leeral melokaanu murit ndax ngeen bañ ngeen waru damay bañ ngeen jàpp ne yéen lañ ca nekku leen ca sifaatu saadiqul murid bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xawfa ixtiraam damaa bañ ngeen waru am na ñu mu comme ma sa wax ci mañ yi ñenn ña suñ Muxtaar Penn Juuf bind loola ñenn ñi sa xam su jaxat la na ko bis ngi ñëw da gis ay nit yu bari di jaar aw yoon di daw te yoon wañ jaar bu ca wàcc sawara lañ jëm te la ca gën a yéeme nee na man lañu tuddoo te bokkuma ñoom dara ndax fañ nekk nekkoon fa ma nekk nekkuñu fa kon murid yow laaj nañu xamaat ñi nga xamante ne mooy ñi delluwaat ci ni ko sëñ Tuubaa jàngal du ak kaala gu ñuy ràngoo du am maxtu mu ñu takk du am suñ suwaay bu war am suñ sa am suñ abdulaat bu ñuy sol waaye ay jikko la ak ay doxin yoo xam ne sëñ Tuubaa ci boppam moo ko natt ba ne nii la mooy ku koy nekk da ngay nekk jullit xan muslim àqan doo ko nekk murit muy murit goo xam ne ni mbokk yi ni ñu ko yombale léegi nga xam ne comme as tuut ku am dara ku am dara ñu bëgg laa dudde am mbir saadix yomb wutoon noonu ci sëñ Masamba yomb wutu noonu ci sëñ ah, Cheikh mooy sa lépp dañ koo teg ci suñu mustaqim mooy li suñu tubaab di xam ne. wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fii sunnatin wa aqsita murid gi nanguwut ëppal waaye nanguwut yéesal damay wax na mag ñi lu leen boole na sëñ Tuubaa bu ñu ñetti baat yi dong lañ daa wax suñ ko weesu mañ ñi mësa ñëw Sëriñ ñetti baat yi sëriñ bi damaa ñëw ngir a bëgg am ngërëmal yàlla kenn ki ne ko damaa bëgg ñëw ngir ku ma defar keneen ñëw ne ko damaa bëgg ku ma àggale ci yàlla ñett yi ma sa damaa bëgg ku ma defar damaa bëgg am ngërëmal yàlla damaa bëgg àgg ci yàlla yooyu lañ doon jaayante sëriñ bi teg seen tànk ci sax mustaqiim bi nga ko wàcc te mooy ñi boole sariya ak aqiqa wa man bi fiqhin wa tasawufin jama fa huwa allazi huqqa la anhu tawa loolu sëñ Tuubaa wax mbokk yi murid yi bu ñu ko bëggee def ngir njëkkalante waxtu yi mooy fokk ñu way ci jàng ca am ci xasdu li ñu tax a jóg ñu nekk ci loola te bañ koo boole ak leneen sëñ Tuubaa waxoon na mag ñi ci ciyee ne li ko tàmbalee fii ci Jolof ba baa ngay àgg Saalum foofu taxaw da nga gis ku bëgg am yàlla te am yàlla te ko tëcc lu tax mooy fa sëñ Tuubaa nekk dañ faa nekkul sëñ Tuubaa nee na ci wa kaana haqqan huwa alladi lam ara xayruhu wala arau fi sayin hara wana wala moom la sëñ Muntaxaa di tekki sëñ Muntaxaa dañuy wax ne sëñ Tuubaa de biñ ko gisee ba niñ ko noppee gis ci boroom la nekkoon foofee la bëgg ñu nekk fa mu ne li tax sëñ Tuubaa wax ci céen mag ñi ne la lu commencé Jolof ba Saalum foofi taxaw gis mag ku bëgg am yàlla du ko am mooy dañoo bëgg a boole lu baax ak lu bon te lu baax waxoon yàlla ne ko lu bon mii mënumaa ànd ak moom lu bon na yàlla lu baax mii mënuma ànd ak moom yàlla ne la mi leen bind na leen man mii du ma leen boole nit ki bëgg a am yàlla nag bëgg leen a boole loolu moo ñi dal mooy dañu nekk ci daayira yi nekk ci cant yi bu ñu xëyee nekk génnee nekk ci fuural ya nekk ca làmb ja nekk ca nanam ja murit boo xam ne foog nga am mbër fansu mbërum làmb boo ne murit nga war naa xoolaat sa bopp murit boo xam ne foog nga am fansu fookat wala waykat wala fecckat boo ne murit nga war nga am foofoo teg loolu moo tax mbokk yi damay wax ne benn carte benn portable benn carte mémoire nga bëgg jaa def xasida yi bëgg daa def alxuraan yi bëgg jaa def ndongal nduur wala ndongal sekk mooy am na bu ci dëgg jënd jëmm mbokk yi ne ab taalibi la fu ñu waxee cant ga moo koy toj fu ñu waxee daayira moo koy toj waaye bu ma jógee jógee mooy toj làmbu ja bu mu toogee mooy toj whatsapp ba mooy toj facebook ba bu yàggee moom mooy toj waaye toj dara mbokk yi kon fokk ñu defarwaat fokk ñu delsiwaat waaye fokk ñu delsiwaat te doxinu mag ña ku mel ni sëriñ Mahmoudan mii ñuy fàttaliku daa boole woon sari ajuma sëkk aqiqa juma sëkk te dara mos leen yóbbu nga yóbbu borom jël ñoo ngi jéglu baax mbokk yi loolu laa bëggoon a leer asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw sëriñ sa jërëjëf xam naa waxtu yi moo ñu xaw a ñàkk waaye wax dëgg yàlla jàpp nañ benn ci teg noonu wax loolu ba nga xamante ne kenn ku nekk ci ñi toog rek koo ci te jox ko dana am lu mu feeñal ci boppam xam naa li ci mën a bàyyi rek ñu fexe ba li ñu xañoon ñu fexe koo dellu si ak suñu biir dana ko fàttalay muy fonk ndigal te di ko jëfe néewuñ ñu jàng xasida baaxut suñ bàkkee waxul loolu de waxul loolu it nam leer na nañ jàng xasida waaye nag dafa wax ne képp ku jaar ci aw yoon dem na ca am digal ndax sëñ saale Mbàkke radiyallaahu taala anhu wax nañ ne dafa am ci dongaam yi ndonga boo xamante ne dañoo bay ba bay ma àgg bañ ko defaree ba mu ba mu sontu ñu jébbali ci ko ñenn dong ya mag nga dem ci fu ñuy jàng ci kenn ka des ci biir kër ga demul moom des ci daara ji saa yoo xëyee dagg ay bant wuti nga tax di ko teg ba mu bari mu xëy benn bis rek daal laal kër gi yëpp defar ko ba mu jekk defar ko ay kees ba mu jekk mu def fa mbaar mu set mu rëy ci biir kër gi keroog bi mu àggalee mbaar ba toog ci jëmmi nii la fa sëñ Saaliu Mbàkke nag ak si daal xool kër gi na ko tabaarakallah de ndaw bi daal day daal rek dafa dara moom moom kay maa ko ñàkkoon rek mu ko waaw cey bu ko ndigal laloon cey bu ko ndigal laloon loolu mbokk lu mat a xel sëñ bi maanaam kon jëf jël la muy rëy rëy rëy solo ndax ndigal lalu ko kon nag lu waay mën di def na ca sóor baat boobu kon nag wa ma ataakum rasul fa xusuuhu loolu lu mat a bàyyi xel la wa ma umiru illa li abudullah akim muxlisina lahu dina unafa loolu lu mat a bàyyi xel la mbokk yi xam naa kon ñu jox rek si Basiru Lo insha allahu rabbi bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الإكوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki njëriñ yi mbokki taalibe yi fi teew ci turu dairatul muxsiniina wal muxsinaat di daaira bi lëkkale mboolem sati sëriñ Mahmoudan ci góor ak jigéen ci njiital sëriñ Cheikh mu sëriñ Ahmadu maa ngi leen di nuyu jataay bi dafa mel ne lu xaw guddi moo tax ñu soppi tëralin wi dañoo waxal ne kàddu googu dañu koy jox sëriñ Moustapha mu sëriñ Cheikh mu jotal ko ndax mu gën a yaatu waane ni waxtu wi demee ak toogaay bu yàgg bi ci kilifa yi rawatina te suba itam di bis bi nga xam ne ñii lañuy yendoo fanaanewaat ko kon lu ñu ko gën a mën a tënk mu gën ñu far ma koy jox ne naa ko far jottali ngir jataay bi gën a tënku ci njëlbeen bokk yi seen mbokk yi nga xam ne ñooy sëti sëriñ Mahmoudan ñi ngi wax ne ñi ngi sant yàlla borom bi leen bind te defal leen tawfiix ñu mën a xeeñtu seen jéegoy maam ba taxaw takku di ko liggéeyal ci toolub diine woote ci bis bii ngir roy seeni kilifa woo leen ci ngeen ñëw ànd ko ak nun cant googu ñuy sant borom bi sant ko sëriñ bi sant ko sëriñ Masamba sant ko sëriñ Mahmoudan ma cay sunu bunt tey ñaan moom moomu di sëriñ Mahmoudan ak kilifaam yooyu ma tudd borom bi dolli leen ngërëm ak yërmaande ak xéewal te nu ci seen barke gannaaw loolu mbokk yaa ngi sant sunuy kilifa yi nga xam ne ñoo jiitu ci ñi ñuy sant ndax jataay bii bu nu ko manee am man koo taxawal man koo def gannaaw dogalub yàlla ba seen ndigale ñoo nu ko digal gunge nu ci taxawu nu ci wéttali nu ci kon noo ngi sant njabootu sëriñ mahmudan jiital ca ka yàlla jiital di sëriñ cheikh mbakke mu sëriñ mahmudan ñaan yàlla dolli ko kàttan ak man-man te defal ko ndam ci liggéeyu waajuram wii di sëriñ mahmudan te nu ànd ko ak moom di sant rakkam yépp sunu kilifa si Mamadul Fadil mi nga xam ne mooy jëwrinam mi ngi nii toog jiite jataay bi te sëriñ Cheikh noonu la amee woon yéeneem waaye nag nu xam ne mbir dana àgg foofu kenn ku nekk daal am na nu mbir di demee nga mën caa jéggal sa kilifa ca yenn ya ndax coono yi mu yendoo ak fan yi li mu daj ak li mu dégmal suba te am ndaw yu mate ndaw ne ndawam yii ñu jàpp ne daal bu toogee ci kër gi dinu may nopp kilifa yi ànd ak nun jataay bi dana doy mu wax sëriñ Mouhamadul Fadil mii mu ñëw jiite jataay bi kon noo ngi sant sëriñ Fadilu ci taxawaay di sant Cheikh Mamadou Lamine Baara sëriñ Abdul Ahad Cheikh Abdul Qadir sëriñ Sohaybu njabootuk sëriñ Mahmadan gépp sëriñ Cheikh Abdou sëriñ Mam Samba sëriñ Mam Moor sëriñ Moustapha sëriñ Xaadim sant sunu wayjur yii soxna Ndey soxna waalo soxna daba soxna astu gaawaan soxna may naka noonu sunu waajur soxna ami mahmudan soxna ami muxsina soxna ami bàcc soxna bintu soxna umul xayri bàyyi xel bu baax suñu waajur soxna maam isa mu soxna amina te ñaan borom bi mu dolli ko wér sant njabootu sëñ mahmudan bi yépp naka noonu sant bokk yi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom liggéey bi te mooy njabootuk sëriñ Masamba ñoom ñépp teew nañu noo ngi leen di gërëm di siyaara sëriñ Moustapha te di ñaanal yàlla te di ko ñaanal yàlla mu yàggal taxawaayam sëriñ Moustapha moomu njabootam gépp teew nañu njabootuk sëriñ Masamba ñépp teew nañu sunu kilifa sëriñ Saalihu Mbakke mu sëriñ Moodu Faati Xari mi ngi ci jataay bi waane sunu kilifa sëriñ Basiiru Mbakke moom sëriñ Mustapha mu sëriñ Masamba ànd euh, njaboot ga yépp sax mën naa ne njabootu sëriñ Mustapha Cheikh Abdul Faadil mu sëriñ Mustapha mu sëriñ Masamba sëriñ Abdul Baaxi Mbakke ibnu Serigne Abdul Xabir moom itam mi ngi fi sunu kilifa Serigne Basiiru Mbakke di kenn ci nun di kenn ci njabootuk Serigne Mahmoudane nga xam na lu njabootuk Serigne Mahmoudane nekk nga seen ko ca jataay bi at mu nekk moo nun noo koy ànd bokk yaa ngi rafet lu bu baax taxawaayam bokk yi nga xam ne ñëw nañ yépp di daayira ahfaad yi daayira ahfaadi sëriñ Moodu Faati Xari teew nanu délégation bu mag ci njiital sëriñ Jiiri Mbàkke moom sëriñ Cheikh sëriñ Muhammadul Murtada moom sëriñ Cheikh ànd ak sëriñ Mahmoudan ak sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Basiiru mu sëriñ Moodu Faati Xari ak Cheikh Muhammadul Fadil moom sëriñ Fadilu moom sëriñ Moodu Faati Xari bokk yaa ngi rafetlu bu baax seen taxawaay yi naka noonu itam axfaadi sëriñ Moustapha mu sëriñ Masamba ak sëriñ Mamor teew nañu ci njiital sëriñ Aydara Mbakke moom sëriñ Ahmadu mu sëriñ Moustapha Masamba ànd ak sëriñ Abdul moom sëriñ Jiili mu sëriñ Moustapha mu sëriñ Masamba ak sëriñ Basiiru moom sëriñ Ahmadu Mbakke mi nga xam ne moom itam noo ngi koy bàyyi xel bu baax te di ko ñaanal borom bi mu dolli ko tawfeex moom sëriñ Ahmadu axfaadi sëriñ Modou Awa Balla ñoom itam teew nañu ci jataay bi ci njiital sunu mbokk sëriñ Modou Mbakke moom sëriñ Seexuna mu sëriñ Modou Awa Balla axfaadi sëriñ Touba Sougou ñoom itam naka noonu jataay bi at mu nekk nu ànd ko teew nan fi ci njiital sëriñ Jiiri te njiital sëriñ Ahmadou Hanbal Soucoulane ndax fa di sëriñ jiiri sëriñ jiiri waa ci njiital sëriñ Ahmadou sunu mbokk mi ngi nii toog jataay bi miin na ko lool naka noonu axfaadi sëriñ Modou Anta teew nañu ci njiital sëriñ Basiru Lo moom sëriñ Xalifa ak sëriñ Abdul Ahad ak sëriñ Modou ak ñañu àndal naka noonu axfaadi sëriñ Ibra teew nañu ci njiital sëriñ Cheikh Astu Fàlloo ak sëriñ Ahmadou Gay Jamooy njabootuk Baay sëriñ Loo Daara yi teew nañu ci sëriñ ci njiital sëriñ Mbàkke Loo Daara ñoo ngi rafetlu bu baax ñoom itam seen teewaay ak faati sëriñ Abdul Baaxi moom sëriñ Masamba ñoom itam ñëw nañu ci njiital sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Mouhamadoul Fadil mu Cheikh moom Cheikh Mouhamadoul Fadil mu sëriñ Abdoul Baaxi axfaadi sëriñ Ibrahima Lo Ngaabu ñoom itam teew nañ fi teewaay bu am solo ci njiital sëriñ Xalil Lo moom sëriñ Ndaam rahmatullahi alayhi ñëw nañu ak délégation bu mag bi ñu àndal axfaadi sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh mu sëriñ Amsatu ñoom itam teew nañu ci njiital sëriñ Alxaaji Lo nga xam ne ñoom la àndal waaye kenn la it ci nun ak ci liggéey bi naka noonu it axfaadi sëriñ saa buso sëriñ maam cheikh buso moom sëriñ maam sëriñ buso moo ko jiitee bokk yaa ngi rafet lu teewaayam naka noonu it sunu bokk yi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci axfaadi sëriñ abdu jaddu yooli ñoom itam bis bii naka jekk at mu nekk nu bàyyi ko xel ànd koog noonu teew nañu tey ci njiital sëriñ Saalibu Mbakke moom sëriñ Yeddaali ànd ak sëriñ Abdu Mbakke moom sëriñ Mamballa ak sëriñ Moustapha Mbakke moom ibnu baay sëriñ Mbakke ak sëriñ Fadilu Mbakke moom sëriñ Muhammadul Muxtada kon daal mbokk yi woote nañu wuy si nañu bokk yaa ngi leen di sant bu baax eh, di sant itam sunu bokk yi bàyyi ko ndaam sëriñ Mouhamadou Lo moom Cheikh Mouhamadoul Bachir ak bokk yi mu àndal yépp bokk yaa ngi leen di beral ak cant ñoom itam tey rafetlu seen teewaay bokk yi itam sant nañu bu baax magi taalibe yi nga xam ne ñoo ne ci atub sëriñ Mahmoudan fii ak ci yeneen gox yi ndax am na ñu ñu koy yëgaloon waaye wax nañ ne ñoom yëg nañ ne magi taalibe yi ak bokki taalibe yi ñépp wuyu nañu seen woote bàyyi nañu ko xel ñoo ngi leen di gërëm bu baax ci seen taxawaay tey ñaan borom bi mu fay leen aw yiw naka noonu itam mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi ki mboolem bunti kër yi nga xam ne moo ëmb kër Serigne Mahmoudane ñoom ñépp seen taxawaay bokk yi rafet la nañu ko te njëkkul tey ngir na at mu nekk noo koy ànd xam nañu ne liggéey bi benn liggéey la borom bi lañu koy liggéeyal ci toolu sëriñ Mahmoudane kon nag yàlla na yàlla fay leen yéen itam te yàggal seen taxawaay naka noonu itam sëriñ Masek Baar mi nga xam ne mooy meeru Touba Mbélla moom itam mbokk yi gërëm nañ ko bu baax ci taxawaayam ci dëkk bi waaye taxawaayam ci mbooloo mi ngir ne at mu nekk mu ànd ko ak mu gunge nu ci ñoo ngi koy gërëm bu baax te di ko ñaanal borom bi may ko ndam ci liggéey bi ko kilifa yi liggéey loo di sant bu baax al imam imam Touba Mbella suñu waajur Serigne Daouda Lo moom itam di kenn ci liggéey bi waaye di kenn ci njaboot gi bokk yaa ngi koy sant bu baax tey ñaan yàlla yàggal taxawaayam eh, naka noonu itam alxaaji Moussa Diop bàyyi ko Thiès bokk wax nañ ne moom ak ñi mu àndal eh, imam ak ña mu ñépp gërëm nañu leen eh, imam Diallo ak imam Mangane eh, ñooñu nga xam ne Thiès la ñu bàyyi nañu yëg ne bokk yi nee ñu rafetlu nañu bu baax seen taxawaay ak seenu dikkiin ñu leen di gërëm bu baax naka noonu itam sunu mbokk sunu waajur alxaaji Mor Sàmm bokk yi wax nañ ne moom itam sant nañ ko bu baax ci taxawaay bi di sant njabootam gi yépp it ndax noonu lañu àndeek nun liggéey di sant it kenn ci mbooloo mi koo xam ne ba ñu jógee ba tey it mu ànd ak nun muy sëriñ Mbay Saar bu Sénécartour moom itam naka jekk at mu nekk mu ànd ak nun bokk yaa ngi koy gërëm bu baax tey ñaan yàlla mu fay ko lu kawe njortam Ah, kenn yit ci nun ci mbooloo mi di sëñ Abdullahi Sarr nga xam ne at mu nekk daananu ci taxaw di borom pas-pas moom itam mbokk yaa ngi koy bàyyi xel bu baax ci ñaan borom bi mu dolli ko tawféex te dolli ko ak wér delloo ko ci sagoom ba mu mën a dellu ci liggéeyam mbokk yi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ci ñaan yooyu tey ñaan kilifa yépp ak ñi fi teew ñu ñaanal ko ndax ku jàmbaare la ku bëgg lu baax la ku am pëstéef la koo xam ne nangu naa sonnal borom bi ci toolub sëriñ bi noo ngi ñaan borom bi mu dolli ko ak wér naka noonu itam sëriñ Modou Seck sëriñ Modou Seck it nga xam ne kenn la ci njaboot bi waaye kenn la ci liggéey bi mboolem li fi nekk ci ay xeeti rajo ba tax nit man noo dégg jumtukaay yooyu yépp moo ko fi indi te njëkkul tey at mu nekk moo nu koy jox te dara la ci lu dul ne wax na ne jumtukaay la ci jumtukaay yi sëriñ Mahmoudan yi bu nu ko soxlaa mu jox nu ko nu ànd liggéeyal sëriñ bi bokk yaa ngi koy gërëm te di ko ñaanal yàlla mu dal di ko tawfiix naka noonu itam waa presse bi ah, ñoo ngi leen di gërëm bu baax ñoom ñépp ñëw nañu waa jant bi fm ak la mu ëmb ci bànqaas Serigne Gora njaay ndaanaan mi ngi noonu toog naka noonu itam waa Lamp Fall ñëw nañu naka noonu itam waa istiqaama ñoom itam ñi ngi fi ak mboolem ñi fi teew ci wàllu média bokk yaa ngi leen di gërëm ñi ngi leen di sant ñu wax ma ne naa beral cant fii kenn it kook tuddoon naa ko muy sëriñ Moustapha mu sëriñ Mahmoudan ñu ne moom itam bokk yaa ngi koy gërëm bu baax ndax liggéey bii da koo def mu dib liggéeyam li mu ciy def ci jëf bu ko ci defee day sori lool ci li ñuy def te itam liggéey bi yegg na foofu bokk yi ñu ngi ci waaye soxla ci ndimbal moom nag ñu ne at mu nekk mu gunge leen ren ji itam gungeeti na mu gunge bu am solo boo xam ne sunu ndimbale ci liggéey bi bokk yi ne noonu koy gërëm bu baax ci taxawaay yooyu ndax yëg na ne njabootam ñoo taxawal mu di leen dimbali noonu it la ko njaboot di defee kon ñoo ngi koy sant bu baax ah di daaneel nag ci li waroon a jiitu mooy sant bu baax sunu bokk yi nga xam ne ñoo doon def waxtaan bi sunu sëriñ sunu lépp sunu soppe sëriñ Mbàkke Abdourahman sëriñ bi bokk yaa ngi lay gërëm ñi ngi lay sant bu baax ca la jiitu ak jataayu tay bi doo am jaf jafe-jafe mukk ci waxtu wunu la soxlaa jataay bii noote nga ko ay yoon waaye xam nanu ne borom bi ngay liggéeyal ñëw fii fàttaliteeg nun ci bind bi nga doon fàttalante ak nun xam nanu ne wuutale ko ak xëy dem ca daara ja di joxe bind waaye nag noo ngi lay sant te di la gërëm ci taxawaay bi di ñaan borom bi ci kàttanam mu yàggal sa dund wéral saw yaram yokk sa xam-xam tabarkeel ko ci darajay sëñ Tuuba waaw bokk yu bari dañuy taamu ñu di la woo léeg-léega ñu ne diw ñu ne na sëriñ dellu si loolu nag li ko waral mooy tawfeex ji la yàlla jox te yàlla na sax te dolliku ci nga mën a wax ak nit ñi lu ñu mën a dégg loolu tawfeex la sëriñ bi boo ko yëgee ak boo ko yëgul borom bi wërsëgale na la ko yàlla na ko sàmm te yàggal ko danaay dégg ci sëriñ Cheikh mu sëriñ Mahmadan mii muy wax ne sëriñ daal waxtu wu ma ko déggee dolliku dara loolu nag kilifa yii fi teew xam naa ne sax jataay bokk na ci li leen fi bàyyi ba nëgën yi kon nag bokk yaa ngi lay sant bu baax di ñaan borom bi mu barkeel dund gi di sant almudir sëriñ Cheikh Mbacke Ndaw moom itam ku jàppandi ca ku jàppandi la ci liggéey bi waxtu wu nu ko soxlaa ci fii ca ndakaaru ci yeneen bërëb yi day bàyyi liggéeyam ca Fatick dem doxi yitte yooya delluwaat barki démb rekk ci mujj ci jataay bi ñu doon def làmp fal Fatick la jóge ñëw te biñ noppee ci guddi gi la jóge waat ndakaaru dem Fatick loolu yitte la pas-pas la Serigne Cheikh Mbacké Ndaw na nga yëg ne bokk yi gis nañu ko naka noonu al oustaz Serigne Adama Ndaw moom itam kenn la ci liggéey bi nii lañ koy ànde kon nag noo ngi sant bu baax tey jéggulu kilifa yi ci kàddu gi ak jataay bu xawbee yàgg waaye daf di ne ku woote ba say nawle ñëw say bokk ñëw jaadu na nga gaaral say kilifa ne bi nu wootee ñii noonu wuy noo ngi sant nag tey jéggulu ci jataay bu yàgg bi sëriñ bi di fàttali ci turu sëriñ Cheikh Mbacké moom sëriñ Ahmadou mi nga xam ne mooy kilifa ak yi mu wax moom sëriñ Cheikh na mi ngi sant mboolem sët yu góor yi ak yu jigéen yi te ba ñu tàmmalee wàccaay yi ba ni ñu egsee ci jataay bi waaye di leen ñaax ak di leen soññi ci ñu gën a góorgóorlu xam li nu boole xam li nu tax a jóg ñu ànd ngir yàlla jëf ngir yàlla ak liggéeyal sunu maam sëriñ Mahmoudan ci toolub diine ci toolub sëriñ bi maa ngi jéggalu bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullah aleykum wa rahmatullahi wa mu ne mi ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñépp ci turu sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy kilifa kër gi di kilifa mbooleem njaboot gi fi nekk yépp sëriñ bi mu ne mi ngi sant yàlla bu baax baax ci daje bi nee na te bi lépp li ko waral di lislaam li ko waral it yépp di ak taalibe nee na ndax kenn jëndul loolu nee na kon ku ci ne war ngaa xam la jariñ war ngaa xam la lor nee na ndax nga fonk la lay jariñ te mën a woytandiku tamit la lay lor nee na sëriñ Cheikh nee na nee na sëriñ Cheikh nee na daayiratu ahfaat bi nga xam ne ñoo ñooy organise lii muy daayir daayiratu ahfaat ahfad sëriñ mahmoudan daayiratul muhsinin wal muhsinat nee na mi ngi leen di sant ci seen taxawaay bu baax nee na ndax bis bii ñu jublu ki fi nekkoon doon ko defal boppam muy sëriñ mahmoudan yàlla na sunu boroom yokk ko ay leer nee na daan wax ne nee na bis bi li tax ma di ko wootee nee na mooy fàttaliku sunu kilifa yu baax ya nee na bu ko tuddee tudd na Seex Masamba nee na bu ko tuddee it tudd na ki nga xamee ne mooy kilifa ak ma sàmba di Seexul Xaddim nee na fàttaliku ñooñu nee na fàttaliku seeni jikko fàttaliku seeni doxin jànge ca roye ca fàttalikoo ca nee na loola daf ñoo war bis bu set mm, mm, mm, nee na bis bu set dañoo war a dajale mboolem taalibe yi ak bokk yi di fàttaliku loolu nee bu ñu ko mënul bis bu ne nee na ñu war ko di ko def ay bis gu ne nee na bu ñu ko mënul tamit ci ay bis gu ne nee na weer wu ne war nañu di ko def nee na bu ñu ko mënul nit ci weer wu ne nee na war na at mu ne ñu jël benn bis def ko ca def ca loolee nee na mooy sababu li waraloon mu daan def màggal gi nee na kon lii ngeen fi def tey nee na jëmmal na li nga xam ne moom la borom bis bi daan def nee na kon sëriñ Cheikh nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax yéen waa daayira bi nee na te xam ne ne it li ngeen di def yéen waa daayira bi lépp moom ngeen koy defal nee na ndax li ngeen di def génnul ak taalibe ndax nee na Maodo bii ñu sàkk tey jii jox ko sëñ Mbàkke Abdourahmane ni ñu ko waxee. nee na am na solo lool lu mat dégg la nee na kon mi ngi jaare foofu fii di mbàkk di nuyu sëriñ Mbàkke Abdourahman nee na di ko jox wàccuwaayam nee na day moom sëñ Mbàkke Abdourahman la taxoon ñuy jàng xam-xam te sëriñ Touba santaane woon koo noonee nee na moom sëñ Mbàkke Abdourahman dama nga ca ma ngi koy jëfe ndax nee na fu mu mën a toog moom sëñ Mbàkke Abdourahman nee na dana sagal lislaam dana yëkkati lislaam ba ñu xam ko dana ko raxas ba mu set wecc bu fekkee dafa taq te nee lépp loo xamee ne tamit nit da ko caa bëgg a taqal bu sëñ Mbàkke Abdourahman teewee dindi loole nee na loolu yi nag nee na mooy njàngale mi nga xam ne mu am solo la te moom la sëriñ Touba santaane kon nee na sëriñ bi nee na mi ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax nee na ñi ngi ñaan ñoom njaboot gépp yàlla guddal saw fan te defal la wér te dolli sa xam-xam te barkeel ko yéen waa daayira bi nga xamee ne yéenay daayira sët sëriñ Mahmoudane yi organise bis bi sëriñ Cheikh nee na mi ngi sëñ Fallou nee na sëriñ Cheikh mi ngi leen di soññi bu baax a baax nee na ngeen góorgóorlu bu nee na yoon wi nga xam ne ci ngeen tege nee na bu leen ko wàcc mukk nee na séentuwu ko de ci yéen ndax nee na waxtu wu leen gisee day gis la nekkoon ci yéen nee na di gën a dolleeku bu baax muy pas-pas ak jéem a sellal ak jéem a nekkuk jullit nee na jéem a nekkuk taalibe nee na ndax lii ngeen di gëstu nee na bëgg a dëggal loola mu nekk ci nun nee na loolu rekk moo tax ngeen di ko def nee na loolu moo tax Serigne Cheikh nee na xelam dal na bu baax ci yéen nee na mi ngi leen di soññ bu baax di leen ñaanalit bu baax a baax góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi sëriñ Fallu nee na mi ngi sant ci turu sëriñ Cheikh mbooleem ku fi teew ndax nee na fii day ku fi teew eh, nee na xam na ne ku fi teew dundal yoonu murit nee na dundal yoonu murit mooy sa bëgg-bëgg ci mbooleem ku fi teew nee na li nga xamee ne sëriñ Mbàkke Abdourahman wax na ko fi nee na mu doon yoo xamee ne dafa nekk ci nun te muy ay jikko nee na jikko yooyu yi nga xamee ne moo nekk ci nun te sëñ Mbàkke doon ko waxtaanee dara wuru cee nekk ci nun wurul nekk ci nun ci biir yoon wi nee na loolu déglu ko nee na ku déglu loolu da bëgg jikko yooyu denc yow ak yi nga xam ne te danga ngaa bëgg yi nga xamee ne da bëgg mu nekk ci yow nee na boo ko dee déglu nee na dafay dal di xam ne yow mi toog di déglu loolu bëgg loolu nekk ci yow rek mooy sa yitte kon nee na jataay bu am solo la nee na bis bii dara ëpp ko doole ci màggal gi kon nee sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax ànd ak mbooleem njabootuk sëriñ Mahmoudan gi ndax nee na mbooleem njabootuk sëriñ Mahmoudan gaa ngi teew nee na loolu nag li ko waral mooy yitteel goo xamee ne bis bi da leen koo yitteel ndax nee na li ñu fiy wax nee na ku beru woon ci sa kër woo nit ñi nee na doo leen mën a wax kat lu weesu lii ñuy wax ci guddi gi nee na kon bu ñu ko boolee nee na bu ñu ko boolee rek li ko waral mooy kenn ku nekk dañ laa waxal la nga bëggoon a wax kon nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax di sant mbooleem ku fi teew di ñaan sunu boroom fekkeloo ñu ko ay at yu baree baree baree bari te yàlla musal ñu ci am ndog musal ñu ci seytaane dàqal ñu mbooleem lu saytaane yàq te nee na yàlla nañu sëriñ bi teg ca melo wa nga xam ne nee na mooy melo wa nga xamee ne moom la sëriñ bi taamu ab taalibe mel ko ndax nee waru baaxul kat ndax nee na jàpp ne yaa ngi ci dara te fekk nekkoo ci dara nee na loolu moom daray àddina jaru ko nee na yàlla nañu suñu borom musal ci loolu nee na sant nañu ñépp gërëm nañu ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yallaahu yaa man laa ilaaha xayruhu yaa man yajiihu li dawaaman xayruhu yallaahu yaa man laa ilaaha